fidèle internet d'Equivox TV bienvenue et dal leen ak jàmm ci seen matinale de revue des titres comme ni ñu taamoo di ko defee tous les jours fas yéene ànd ak yéen nag ci revue des titres sur Equivox TV mais laata loolu rek damay nuyu ndaanaan la ci biir ndaanaan yi comme moom laata ma koy dugal faaw ma tagg ko journaliste bu mag la yëngal yaram bi tuuti Pape Ousmane maa ngi lay nuyu. maa ngi fay Mariama di kontaan ànd ak yow comme ñu koy defee matin bu jot yaa ngi ñi xam ñooy suivre revue de presse bi am matin bu jot. Aïcha dañuy rek daal di vite fait tàmbali li nga xamante ne moom mooy revue des titres tey nag dañ koy dooree ak ki nga xamante ni ñoom ñooy l'exclusif ah. mu ñëw ci li nga xamante ni moom dañu indil salton temps chez Sonko moom maanaam premier local yi daal premier complication. non mais c'est clair xam nga euh, euh, li njëkk a indi complication bi mooy. Mhm. le fait que Sonko waxoon ni du mës dugg ci mbiru coalition. ñëw nag ñu gis ci local yi mu ànd ak ñoo xamante ne xëy na. Mm. jàpp na ni dañu incarner système bi muy xeex su ñëwee saafonte ak ñoom nga gis ni euh, ci coalition Yewwi quand même en dehors de Khalifa Ababacar Sall bi ñu ciy tudd ak PUR am na yeneen entité yoo xam ne ñu ci ànd te réalité bi am ci ñoom leader yi ci lu ñu d'accord du forcément loolu mooy am au niveau local ce qui fait que boo demee ci ay gox yoo xamante ne xëy na. ñi ànd ak Sonko jàpp nañ ni kenn gënu leen cee yeeg. Mhm. te donte sax amuñu base kenn gisu leen ci benn yëngatu parce que Ousmane Sonko am na benn aura. Mhm. ñu ngardaajoo euh, mbubbam boobu forcément lii lay indi. mooy ay jafe-jafe yoo xam te ne nemmeeku nañ ko ca Kër Massar nga xam ne ñu ngi ciy tudd euh, Birame Souleye nga xam te ne nekkul quand même ku ñuy présenter ci euh, parti bi di Pastef. Mhm. mais bu fa fekkee ñoo xam te ne xëy ne jàpp nañu ni. ñoo ko ëpp légitimité te légitimité xëy na bi muy woote woo du dara lu mooy ni jege na Ousmane Sonko ànd naa ak moom forcément lu mel ni lay indi euh, te it euh, musique bi ñuy tëgg fii ci coalition Yewwi Askan Wi moo am pratiquement ci coalition yu bëri. Mhm. Euh, te lu mel ni xëy na bettul ñu jàppoon ni. forcément dina am ay mbëkkante ci ñenn ñi jàpp ni xëy na ñoo gën a légitime que d'autres mhm. kon daa mën nañ jàpp ni diggante Guédiawaye ak Keur Massar ndaw yoo yi nga xam ne ñu ngi euh, ci parti boobu di Pastef am na ñoo xam ne commencé nañ soo seen daal di daw ah oui parce que mhm. euh, ñu ci bëri si ñoom xëy na dañu bu ñu ñëwee la Pastef di di di incarne en terme de rupture xëy na ko doon fekk mais je dis tamit loolu la mhm. mooy ne nit ki du rek da ngaa wuy ji ku mel ni Euh, la nga bëgg yëpp da ko ciy fekk parce que affaire yi tamit rapport de force la politique mm-hmm. Mm-hmm. xëy na dinañ ci ñëw ci candidat boo xam ne ñu ngi ko doon xaar mujj nañu euh, ci tabb yi ci ndakaaru euh, kan la ci doon mm-hmm. mujj nañ ko tabb xëy na gis naa ni presse xëy nañ ci ñëw nañ ci bu baax a baax ci nga xam ne ñooy sàkkoo jotee ci mairie bu bu Dakar. ci kooku rek xam naa ne la ñuy jàll très rapidement ndax euh, critique tey loolu la ñu xëyee àndil ñu ki nga xamante ni moom mooy Barth nee nañ Barthélémy Diaz entre Soham Wardini la bénédiction de Khalifa Sall. xam nga gars yi ils sont très forts en termes de. non souvent dañuy jouer yi de telle sorte que. Mm. voilà am na sax ci benn titre bu ma reeloo gis ni Barth Khalifa de Dakar di jouer ci Barth Khalifa avec la bénédiction de. de de en mm. fait euh, cest à xam nga li compliqué le choix bi nga euh. xamante ni Khalifa mënu woon jël keneen ko du Barth mooy ni dès le début Barth dafa xam ñëpp ni mu neex mu naqari ngeen ne fekk ngeen ñàkk fee ne ngeen jàppale ma ja naq euh, ñàkk maa jàppale candidat lay doon mm. xam nga pression bu ni mel la Khalifa yëg et d'ailleurs il l'a pas nié que ni pression la euh, ba gis naa sax de l'autre côté ku mel ni Euh, Gadiaga nga xamante ne moom mu ngi soutenir candidature Soham El Wardini mhm. ne ko yow bu dee ni pression Barth rek moo tax nga séddee te yow nga doon yóotu réew. kon fooy mujjee buñ la ko joxoon nooy def ak ñun koy wax ne ko ku mel ni Soham Wardini fii la ñu la fi tëj <laughs> moom fu ne mu sàkku ci nañ la bàyyi te pourtant pression da doon jot. Mhm. te mus te varier ci position pour dire que comme on a l'habitude de le dire ah rapport de force la Barth teel na dëggal boppam. xëy na woon Xalifa Ababacar Sall nag boo ma tànn li damay dem. Mhm. te comme koo xam ni dafa am fulla ak fayda ci li muy def. Euh, en dehors de loolu aussi dëggal na boppam. Mhm. politique dafay laaj loolu moo tax gis nga. dafa mhm. jot sa éclipsé ñeneen ñi nga xam ne xëy na ay candidat lañu woon fësaloon nañu seen bopp ci yeewi. et à la dernière minute moom la ñu mujj euh, ndax. Euh, aura bu mu wane doole jeeg fulla ak fayda ji. Hmm. Eh, jàpp naa ne loolu moo gën a primé ci candidature am. na solo loolu surprise daal nekk surprise pour ñenn ñi am na solo j'imagine que le choix n'a pas été facile pour moom. mais bon waaw pour Khalifa. mais <laughs> franchement euh, finalement il a a quand même croché pour ki nga xamante moom mooy Barthélémy Diaz dañuy jàll ci li nga xamante ni moom le quotidien ba tey des ci li nga xamante ni moom mooy wàllu politique gi. ci biir maire que dañ ki nga xamante ni moom mooy gis ki nga xam ne moom mooy Bougane Gueye Dany Barthélémy Diaz ah ak Doudou Wade waa dinañ ci dégg ñeneen hmm. loolu moom euh, xam naa ni euh, du du du du du yàgg hmm. dinañ ci dégg ñeneen ñoo xamante ni euh, ci coalition bi wala bokk ci ñi sàkkoo jotee ci mairie bu Ndakaaru fa la ñu ne donc ma jàpp ni kàcc yi nga xamante ni ñoom la ñu dressé gum gis nga sax ci yeneen quotidiens yi am na ñeneen ñu ciy tudd ñoo xamante ni xëy na ñoom bëgg nañoo jotee ci Ndakaaru mais surprise bi xëy na ci ñenn ñi doon xaar te mu fësal ko mooy di Bougane Gueye Dany bañ ko doon laaj. Mm. est-ce que Dakar ngay dem wala déet il était un peu nuancé sur question xëy na da doon xaar pour xool. Mm-hmm. peut-être ñan la nar a jongantel au niveau de Dakar mais amoon na une idée parce que ku mel ni Barthélémy Dias wax naa ko. ku mel ni mm-hmm. Abdoulaye Diouf Sarr ñu ngi ko doon tudd ak Amadou Ba mais bu fekkee dernièrement ku mel ni Abdoulaye Diouf Sarr moom euh, mm-hmm. bi euh, ci wàllu euh, Sénégal mooy Doudou Wade bi nga tudd. parce que quand même. waaw loolu tamit war nañ cee wax maître mm. Abdoulaye def campagne mais jiital ku mel ni te te te te ci nekk. Mm. kañ lañ koy xam mooy mayal diir tuuti ñu dugg ci campagne ba génn ci di nga comprendre pourquoi choix bi ñu porté ko ci Doudou Wade non Pape Diop mi nga xamante ni. Mm. tey bu fekkoon mu ngi ci coalition bi quand même ak Doudou Wade y' a pas photo Pape Diop a été maire de Dakar. am na ci loo xamante ni da koy réclamer en terme de réalisation bi muy nekk Dakar. kooku tey ñu jiitaloon ko xëy na amoon na forte chance que ñu génn ci mais. jiital mm. ko mel Doudou Wade mosu ko doxee mosu ko waxee pour man ba léegi choix bi ñu porté ci Doudou wàdd no euh, politique moo ci ne. am na lu ci laal ci ginnaaw boo xamante ne wax naa ko. Mm. ci kanam la jeexam parce que xam na man moom yenn nii bu amee rek dinaa dugg génn laaj def samay kii yooyu. mais comme teelagul sama bopp moo tax dama ko wax. Mm. mais ce qui est sûr mooy que ni jour yi ñu dem dañuy édifier pourquoi a porté le choix sur Doudou et ñeneen ñi nga xam ne jàpp naa ni xëy na buñ demoon ñooy ëpp chance que Doudou Wade en tout cas am na amoon nañu ko gën a fës ki nga xamante ni moom mooy Doudou Wade waaye daanaka rek mën nañ ni moom la ñuy gis léegi nañuy xaar na leen li ci kanam raw li bët dañuy rek ci ki nga xamante ni moom mooy laas laas nag andil ñu li nga xamante ni moom mooy confusion total dans benn Bokk Yaakaar ah loolu de nee naa la sànq musique la boo xam te mun nañ koo tëggee fépp confusion bi li ko indi mooy investiture wax naa la ne la mhm. xam nga lan moo tax mu jafe euh, euh, cette fois ci ci local yi Euh, mm-hmm. ci investiture yi. Mm-hmm. mooy li ñu dundoon 2014 duñ ko dund 2022 2014 euh, maanaam élection indirecte la woon. Mm-hmm. mais bii direct la mooy ni ki nga xamante ne moom mooy doon tête de liste de facto su gagné moom mooy doon maire ce qui fait que arrangement yi doon am après élection yi moom la ñuy def léegi en amont. d'accord ce qui fait que léegi. Euh, investiture yu compliqué. Mm -hmm. parce que choix yi ngay porte ci ñenn ñi mooy ne de facto kooku mooy doon maire. Euh, parce que suffrage direct la donc du amaat comme élection yoo xam ne dafay jeex après conseil daje. ñu mhm. tànn maire loolu du am. loolu moo compliqué yenn yi nga xam te ne moo jëm ci tànneef bi nga gis confusion yi am ci benn bokk yaakaar soo demee ci yenn gox yoo xam te ne parti socialiste moo fa nekk APR nekk fa ak yenn alliés yoo xam ne ci benn bokk yaakaar. Mhm. dafay difficile même le président Macky Sall dafay arbitrage dañuy gis ñoo xam te dañuy génn ñu ànduñ ci. Mhm. donc loolu nga nekk di dindu instant ci benn bokk yaakaar moo xam Thiès. moo xam Saint-Louis moo xam Touba même bu fekkee dernièrement sax Touba y a eu euh, sëñ Abdoulahat delluwaat na ginnaaw ci euh, mhm. liste parallèle bi mu bëggoon a euh, créer mais lii doonoon loo xam ne bettu ñu bëri mhm. rawatina ñi nga xam te ne xam nañu ni ñiy sàkku di ay candidats souvent seeni égo su leen jàppee te am na ñoo xam ne soo seetloo avant sax ñu doon dugg ci investiture yi dañ doon woon président dañ doon woon président Macky sans le dire mm-hmm. que ne ñoo ngi fi lu ñu la def mooy ay mobilisation ngi seen i ñoo investir mm-hmm. ne diw mooy suñu candidat diw mooy suñu alors que le président Macky Sall waxul c'était une manière de euh, à l'autorité que ne attention mm. choix yi bàyyee ma ci xel parce que man au regard li may doy na ci kii ak légitimité bi ma am au niveau euh, de la base que lu mel ni euh, bu choix di am war moo mm-hmm. mën a mais toujours est que bu fekkee ne président Macky Sall moo yor carte yëpp di ko redistribuer jafe mm. coow li jëpp ku nekk di wane naan nangam comme Mambo Diaw wax na. Mhm. nee na moom <laughs> goxam jëm ca kanam ak jàmmi goxam moo ko gënal poste bi mu yor DG des domaines. Mhm. léegi nag on attend de voir est-ce que le président Macky Sall liste parallèle yi ñuy gis nii ñëpp di ko agité. naka lay doxee ci loolu ndax dafay xëccaat comme ni mu ko defee woon en 2014 wala en 2017 ne liste parallèle mu ngi ko ci def dina rëq sa ndigg jusqu'ici on attend de voir le chef ce qu'il va faire parce que mhm. ay ñoñam ñu ngi commencé di ko di ko di ko euh, comment on ko. Euh, en tout cas ñu koy di di ko voilà. et euh, mm. même coalition benn bokk yaakaar ci alliés yi aussi jàpp nañu ni foqale la waa APR di wane loolu aussi yombalul investiture yi. en tout cas xam naa ni seen foofu yombul jamono ji tàng na jër dañuy jàll rek ci li nga xamante ni moom mooy Walf Quotidien ñoom nag dañu xëyee ci ki nga xamante ni moom mooy Adam Lam président de la CNS moom nee na nous sommes dans l'attente d'une opérationnalisation du programme de lance waaw xam nga gis nga loolu laa chaque fois ma ni mm. local yi ñu jëm dafa dem ba nëbb maanaam ci soo xoolee quotidien yi ni ñuy xëyee et peut-être xëy na loolu choix au journaliste yi du su ma koy wax mënuma cee sori trop day mel ni comme si damaa nekk ci biir di leen di leen di leen xalaat mais li wax mooy ne am na yeneen i priorité yoo xam te ne war nañ koy di gis chaque jour te bii ci la bokk mooy tey on avait parlé de relance économique. Mhm. bi ñu Covid bi mbëkkee même le président Macky Sall ci discours dajale defoon nit ñi wax ni yoon yi muy jaar on parle de PAP 2A. en fexe ba euh, amoon na benn somme bu ñu dégagé woon pour les entreprises on parlait de 300 milliards de francs CFA mais il était même difficile de faire. la lisi lisibilité pour dire yan entreprise ñoom ñoo ci bénéficié wu. Mm. te tey même bu ñu wax la relance économique et c'est de manière timide réew on nous parle de de de de cette relance boo xamante ni PAP 2 ans fan la ñuy sukkandiku ngir yóbbu ko donc ñii rappel la ñuy def. Mm-hmm. pour wax ne en réalité euh, relance économique boobu et c' est bien d' ailleurs sax ci local yi ñu jëm. Mm-hmm. que cette question ñu mun ko teg ci table ji parce que tey soo xoolee le fait que ñuy wax ni suñu commune yi viable et soo gisee Mamadou Lamine Diallo hier il avait parlé de euh, de de de local yi ñu ngi ciy jëm. Mm. mais le vrai débat devrait tourner autour de cette euh, maanaam pétrole beeg gaz bi ñuy wax rek ak suñuy maanaam les les ressources extractives. Mm-hmm. naka la ñuy def ba mu occuper le débat. que ñu xam cette fiscalité au niveau local que euh, zone yi nga xamante ne xëy na pétrole beeg gaz na fa jaar di ay gox yoo xamante ni tey seen maire war nañ mun am capacité ne kat li ñu wax le contenu local ñu am ci cër. Mm-hmm. pour man cette question là dañ ko war a mettre en avant ci élection locale yi maanaam gox goxaati ñu natt leen ci seen potentialité xool est-ce que maire bi am na tey capacité. Mhm. mën a sukkandiku ci ressources yi mu am. pour am fenn fu mu yóbbu maire pour man question yu mel nii ak ci relance économique. Mhm. war na mën a jël le débat le dessus euh, que yaa nga xam te ñu ngi koy gis ay fëggante dina ay xeex sànnante doorante mm. jàppante fii comme on l'a vécu dernièrement fële ca Ziguinchor pour man yooyu du li nga xam te moom la ñuy xaar suñu acteur politique. Mm. mais dañ bëgg ñu dépasser ces situations yi. mën a waxtaanee li nga xamante ne mooy sénégalais bi ñuy xaar. Mhm. mooy lan mooy yéwanal seen nekkin ak seen dundi bu ñu ko fàttee crise économique boobu indi woon na fi coowal bu mag boo xamante ne nii tey jii réew mi quotidien ñoom dafa dellu si waat ci loolu def genre benn rappel ak mën nañ ko wax noonu le suicide le suicide banalisé des jeunes maanaam. ndaw yi nga xamante ne dañoo jëloon gaal gi utali fa dëkk tubaab bi diggante Espagne ak yeneen dëkk yu ni mel mm. tey ji mu mel ni euh, ñi nga xamante ne jotoon nañ ci ñàkk seen bakkante te euh, euh, lim bi takk woon na torop mu mel ni ñooñu dañu leen banaliser affaire bi daal amul suite waaw non xam nga li ci doy waar mooy suñu demee tey mu mel ni ndaw ñi dañoo démystifier la mort mm. Barça Barça ak liñ ci wax yëpp documentaire yi ñu ci fësal yëpp ak ni ñuy expliquer drame yi neen di am nga xamante ni dañuy dee ci biir ndox bi te loolu mhm. taxul mu décourager benn yoon ñi nga xamante ne ñoom ñooy dem nga wane fi mu egg jeunes yi maanaam maanaam volonté bi ñu war a ne bu na gis fii mooy ni dañu gis ñaari sénégalais yu bokk boo xam te ñoom pourcentage bu ndaw la ci réew mhm. am lu dul mu mel ni dañu dem bay wan nit ñi nii njàng ak euh, sàkku xam-xam ak doon góorgóorlu di rey sa bopp. ngir mhm. am loo yóbbu sa réew. Mhm. daanaka c'est insignifiant boo koy boole ki xam ne dañu milité wu ci parti politique mhm. ñoo dàq saaga wax lu ñaaw ñu ñu promouvoir leen ci ay postes de responsabilité yu mag yoo xam te ne dañuy gis ñu toog ci penc bi mu mënuñu may ay des centaines de millions alors que loolu seen liggéey may loolu gis nga euh, frustration boobu noonu fi muy yegg ci ndaw ñi nga xam ne xëy na ñoom jàpp nañ ni mm. mun ñu ko fay fajee mm. ay xeex ak ay fulo euh, xuloo ay yàq mm. li ñu mën a def mooy bàyyi réew mi dajale seen quatre cent mille seen six cent mille jox ko koo xam ne jàpp nañ mun na leen yóbbu ci yeneen réew yi ñu ñu ñu tayale moom seen bakkan loolu lu metti la ay eh, gisul taxawaay boo xamante ne jëm na ci ñu taxu dëkk ngir régler cette question te boo koy réglé paramètres yu bëri nga jël en compte bii ma la wax benn la ci mais am na yeneen yoo ni également c'est c'est d'ordre sociologique mooy ni tey <laughs> xam ne dina wax gis nga sa nawle ba nekk bi ñu la mu def dafa dajeeg benn maari boo xam ne boppam bi feesul la mu nekk xalaat mooy naa dem dajale lenn mm-hmm. dem joxe ko waa gaal bi dem fekk yi sama morom boobu ñuy tàgg mm-hmm. te xamuñu moom nan lay dund mm-hmm. ca benn réew ngir mun a def lu mu def donc yooyu yëpp bu fa boolee day doon frustration yi indi yi te yi jàpp naa ne taxawaay dëgg bi koy saafara mooy soobu wu ci. ayca am na solo loolu ah, nañ ko wax mais facteurs yi nga xamante ni moom moo war bëri te ko doon jàngat ñu bàyyi xel rek ni ci élection locale te ñi nga xamante ne war a fal ci gox-goxaat yi dañ bàyyi xel trop trop ci loolu ndax ndaw tamit moom mooy fal yi nga xamante ni en majorité moom mooy nekk représenté ci gox yi te ndaw yooyu tey amatuñu benn confiance yi seen njiit yi jàpp loolu dañuy jàllale ci li nga xamante ni moom mooy ñoom ñu xëyee ak entreprise boobu ñu ne la DSC frappe de verre. def ko ah, te te te suñ demee ba lu mel nii di am. te mën a mm. gàkkal seen liggéey. moo tax taxawaay bi ci am nii dafa am solo maintenant nag nañu gën a xóotal bi parce que lu mel ni bu fekkee jot na am ba ñu diriger ñenn ñi. Mm. on parle de cent cinquante millions de francs CFA c'est énorme mm. pour man war ñu mën a yem fii waaye li signal fort la pour que ñeneen ñi xam ne xëy na bëgg nañoo sóobu ci yu mel nii. Mm-hmm. ñu xam ni ni. Euh, am a euh, parce que du entreprise yi kese am na yeneen entreprise yoo ngi dund lu mel ah. nga xamante que ku lay dénk alalam nag alal dafa ah, a baax fi muy jaar. merci Aïcha dañuy tëj loolu noonu yëpp jàll tëjee ci li nga xamante kenn dootu ko. présenté noonu laa tuddee man. donc mooy Mendy nekk finaliste ci li nga xamante ni moom cinquante meilleurs joueurs au monde. li ñu ko ñaanal mooy yàlla yàlla def ci cinquante joueurs au meilleurs joueurs au monde mhm. mu bokk ci maanaam ci euh, podium bi. loolu laa ko ñaan mm. que bu bokkee ci podium bi ak lu mu ci mën a jël dina am beneen plus bu ñu indi ci carrière am. Mhm. parce que il a vraiment fait ses preuves ci diggante bi. ñu bëri yaakaaroon dina yegg fii. Mhm. su demee bay joxanteeg les meilleurs. tout le monde ba ci wane ba mujj sax di inspiré ñu ci bëri mm-hmm. ci continent bi jàpp naa ne loolu fierté Sénégal euh, comme ni ko Sadio Mané nekkee mm-hmm. comme ni ko Kalidou euh, Koulibaly nekkee comme ni ko Ghana nekkee ainsi de suite ainsi de suite ñu mel ni dañ leen di ñaanal te xam ni xar kanam bu euh, rafet la ñu amal ci bitim réew. Mhm. waaye nag ñuy xaar nag lu mel ni exploit yi ñu koy def nag ci équipe nationale. Ah, ni a ñëw suñu yaakaar ci ñoom bokk na si ñi nga xamante ne mise nañu euh, suñu yaakaar ci ñoom. donc euh, ñu koy ñaanal rek en compétition boobu muy dem mu am ci ndam parce que suñu fierté la ñun en tant que donc ci loolu rek sport bi xam naa te la ñuy tëjee nga xamante moom mooy revue des rek maa ci àndoon ak ki nga xamante ne yu mag yi daal laa lay wax nii moom bu commentaire ba pare rek man mooy mujjee nopp ndax ma amatuñu ma wax. Paola <laughs> Sina ma bàyyi la très rapidement. en tout cas merci beaucoup ça a été un plaisir àndal yow ci matinale bi xam naa suba incha allah dañuy dajewaat ak suñuy internet su ko defee ñu wàcc yéen actualité. Aïcha mi ngi noonu restez connecté sur Equivox TV on vous donne rendez-vous demain incha allah même heure sur même chaîne.